Euh, jërëjëf euh, sëriñ Mara El Hadji Mara Cissé itam ñu koy wax rek tamit euh, di ko leeral loolu dafa am solo yaa ngi dugg dugg léegi tuuti ci sarax wax nañ ci tuuti ma dellu si waat tuuti ci wàllum sarax ñu ci bare bare dangay ngay dégg parfois ñu ne digal nañ ma sarax waaye dañ maa tere ne bu ma buñ ma buñ ma génneel gàtt wa ilaa am na ñoo xam ne dañ naan ma man sama bopp sama mbir ci wàllum lu demee ni wàllu lu luy jóge ci suuf la bëggoon nañ ñu leeral ñu bëri dañu dem ba wax leen ni yow mi kat waruñu laa reyal maanaam waruñu maanaam reyal la xar wala moo xam bëy wala dina mel li ni mel waaye sarax rek la ñuy wax ndax loolu ci biddéewam la xool ngir mën ko génne eh, saraxam eh, carrément ba nit ñi mën a xam ni carrément moom mi kat war nañ ko reyal. alhamdulilah Mouhamadul Amin looy gis luy jañ jariñ rek mën na gaañ luy jariñ rek mën na gaañ courant bi nga xam ne moom la ni lumière macha allah appareil bu nekk dafa am wat yoo xam ne bi danaan la wat yi moo koy dawal defe naa lu 100 wat di dawal boo se branché 1000 dina am lu muy def. noonu lay amee am na si sarax yoo xam ne mën nay tëj ka ko def lu weera a la macha allah te it e, rey nu ndànk ko si tuuti macha allah bu dee buntu ñi nga xam ne bi dañuy liggéey sulmaan ya loola seen mbiru bopp la nangul nañ leen ko ndax nit day maandu mais domaine bi mu nekkee moom néew na lool lool lool lool nu ne rey néew na macha allah donte woo duy ñàkk yenn saa yi waaye néew na lool lool lool macha allah. mais daal mbir mooy gis muy jariñ rek macha allah am na noo koy jëfandikoo safaanu jariñ moom nga see am macha allah tey li gën a dansé mooy def loo xamul wala macha def loo amul xam-xam loo amul ndigal yooyu yëpp macha man nga say ut ak eh, yokkute fekk te safaanu loola nga fay am am na kilifa gu mag a mag a mag goo xam ne dégg naa bokkoon na si li ko daaneel béy bu ñuul boo xam ne daf ko rey sarax te kilifa la goo xam ne boo doon génnee ñeent walla juróomi nit ñi gën a ñi gën a kawe si réew mi da ko si boole kon fi tabarakallah noonu koy waxee rek loo jariñ rek ñaare safaan bi mën nay am yàlla yi dañuy dolli sutura ñu koy ñaan mu yokk lool macha allah eh, dañu see am xam-xam. xam-xamu xamal nit saraxam ba lépp lu boloké woon si moom débloqué wu ndax sama téléphone bi ma la ko joxoon ne la woote si eh, du dem lu tax mooy xaj na am na code loolu nag macha allah mën nga ne sarax mooy ubbi lépp lépp lépp lépp fa tabarakala nu ñu ko waxee sarax sikkar suuru sangu juróomeel ba mën na yomb te mooy sañ sa yàgg naa wax nag sañ sa xol moo ëpp solo macha allah ndax danga di gis nit mu mel ni kii macha allah fekk xol ba wax yaasu billah te boo saxo yooyu te yàlla nangu la ko sa xol dana taaru sa leneen ni dana taaru fa tabarakallaa mhm. El Hadji Mara la teye foofu lu yàgg sax xam naa ngir ndar kepp euh, jotaay ci wàllum sarax euh, xam naa benn question rek mu ngi nekk sunu kanam euh, wàllum sarax tey ki nga xam tey dafa ñëw ñu listi xaaral ko tey moo xam ni ci at mi tey moo xam dafa war a génn dugub moo xam dafa war a génn kepp moo xam saraxam ndax tout le temps mën na ko di ko di ko indiwaat ci boppam maanaam di ko di ko dolliwaat muy ñëw wa illaa sax du saa ne la sarax boobu rek am na ñoo xam dañoo jàpp ne seen sarax keeb la wala dugub la wala nangam la rek saa suñu waree sarax sax dem ba jàpp ne loolu seen problème loolu moo dindi am mahamadul amin tolluwaay kul yow min xuwaf si sax àddina lépp mooy dox dina bari ñu ma koy laaj ñama ma nax toujours ma ne mën nay bari waaye ñàkkul ak coppiku mën nay am te nit mën na doon ay sarax mën nga ko ko génneel si misaal bu dee juróom am si ñaar yoo xam ne su ko dee saxal tamit macha allah la baax sa mais du ña si ñàkk yoo xam ne ak tolluwaay jamono du ñàkk ak eh, coppiku di si am incha allah mm-hmm. Mm-hmm. Euh, jërëjëf mbokk yi El Hadji Mara Cissé Serigne di leen ko fàtt rek moom la ñu fekk tey suñu jotaay ci wàllum xam-xam rek euh, fii ci Guédiawaye en face lycée euh, Mame Limamou Laye numéro téléphone baa ngi noonu rek di affiche ci baaru écran bi 77 web baa ngi noonu 3w point wadduha point org waaye tamit compte YouTube rek ngeen def Wadduha TV waaye nag di leen fàttali rek mbokk yi ngeen fàttali benn mbir mu am solo ci jotaay bi sax daaneel ndeer kàpp jotaay bi dinañ ko indiwaat muy wàllu li nga xam ne daara naan bientôt incha allah mu ngi ñëw ci yoon wi di ñaan yàlla sunu borom eggale lépp nag di xaar nag askan wi yëpp incha allah ci taxawaay nga xam ne muy daaree euh, wadduha incha allah euh, sëñ bi fi may daanele rek muy problème couple yi ndax bu ñu waay ñaari way dencante gis nañ way dencante yi saa su ne nga gis ni mënut ñàkk problème ñaari way dencante ñoo xam ne am na ñoo xam ne bëggante nañ daanaka dinañ bëggante waaye seen sëy bi mënul fexe ba taxaw saa su ne am na ay gàllankoor gàllankoor alhamdulilah mahmadul amin muy loo daawoon koy dégg si baay yeeg maam yi macha allah nga daan gis eh, dugg si kër kilifa ga njaboote ñu wuute te jàmm rek fay am léegi si nag yore benn di xaw di jafe loolu kon yaa quelque chose dinaa di wax ne jamono ji ku si yor loo bëgg loo bëgg a téye faaw nga ñàkk ko faw nga téye ko it faw nga def si yitte lu ko may mooy macha allah eh, jamonoy 2021 jamonoy 80 bokkul te it fa laa ni ma koy waxee dëkk bi pantre yi bari nañ fi lool nangul nañ ñëpp nag la leen yàlla may da yoo xam ne bii loo leen wax duñu ko natt seen bopp e, alhamdulilah mas naa dégg loo xam ne e, doy na waar da yu bari sax dooy sañ koy wax mais daal na nit ñi gën na nit ñi gën di defaru na nit ñi gën di defaru di gën di nangu la yàlla dogal problème yu si bari couple yi yu si bëree bëri bu dee cent la mën nga ne quatre-vingt-dix yëpp loxo ma nga sa ndax dañ ne xol lu sa njëkk rek mooy dëgg xamee ko bëgg rek danga bàyyi ñëpp tànn ko moom mu bàyyi ñëpp nangul la kon sunu demee ba mu yàgg am lu xew rek yaa quelque chose mooy tax macha allah nan di gën di ñàkk soxna yi di gën tamit di di sëy yëpp nuy ñaan muy doon sëyu mawadda ak rahma di muslim muy doon xadaawa ak baxda waaye sëyu semaine sëyu ñetti fan fa tabarak li ñu wax li ñu dem miel bu mel na léegi nee na mel na ni loolu rek mooy bànneex si sëy la si des yëpp kaani la loolu fa tabarak maam yeeg bàyyi xamun ko woon fa loolu nag ngir gën di am sutura si ñaari côté yëpp côté ku góor ki côté ku jigéen ki dama mas dégg koo xam ne lu reetaanu la ma wax macha allah dama sëñ bi xanaa xamoo ñaan guy tax may gën di nab sama soxna ma ne ko ñaan nga nangu na <laughs> ma ne ko macha allah ñaan ga nangu na te bi ma koy wax ndeysaan daf def pareur toog ak soxnaam loolu nag fekk mu ngi am rek saytaane di sori waaye macha allah nan di gën di muslu lu tax maa la ko wax léegi ne dëkk bi dafa bëri pantre dafa bëri pantre mooy bëri na ñoo xam ne e, yàlla may na leen xam-xam tey du nuy seet yàlla si lu bëri tey toog nit ñëw si yow wax la ne diw ak diw dañuy sëy dama bëgg nu mel ni xaj ak muus nan soree ni penk ak nan mel ni safaraak ndox walla na tabarak la xam nga kiy liggéey alxuraan su waxtu julli jotee mu julli di jox nit lum <coughs> lu mu koy wax ne soo demee sànni ko si fons te ku nekk xam fons macha allah na mu mel wala demal gas ba jot bopp ko fi bàyyi ko nga nga gànnaayalal ko ko loolu feek looloo ngi fi am feek loolu jógu fi lu nit am te bëgg ko nanga ko protéger bu baax a baax a baax tey gën di ñaan yàlla yi gën di nuy musal gën di nuy musal ba yàlla bu nu yàlla xiir ñuy bokk si liy tas ànd yenn saay macha allah eh, lenn da da ngay jokkoo nii dama bëgg a seet sama diggante ak sama jabar ma ne ko seet ndax paasewul pour lan ma ne ko ndax euh, lu nu si wax rek mën na noo fen mooy su fekkee lépp laa baax sa alhamdulilah mais bu fekkee am na leneen loo xam ne bi nekk na si buñ la ko waxee rek sa xel feebar na te léegi xel yi xel bu feebar a gën a bon macha allah ndax médicament bi tax bi tax nga ne wax nan ma lii si moom wax nañ ma lii si moom nangam nangam bu ko defee fa tabarakallah loolu mën nay dem ba wax yaas billah kon daal mu ngi ñaan yàlla maye woon naa fi allahu jaamihu waddudu ceet la goo xam ne ceetu éternel lay doon si képp koo xam ne yaa ngi koy sikkar si kàttanu yàlla yàlla dana def koy nekkal bët bu set macha allah da ni seetu si kàttanu yàlla ñu ñaan yàlla gën a dàq seytaane yàlla jubale woy ànd yëpp mais sëy daal problème yu si bare bare bare bëri da daal la dafa jafewul Mahamadul Amin ñiy jàngantu sax xam na ni ni daddale dafa jafewul tey day loo xam ne restu seytaane bët bu set million pour cent lay may macha allah ndax day bëggi partenaire su ko defee boo woyefee tuuti rek mën nga fa connecté te wax yaa ëpp na nee naa dëddaat li nit ak way jur dëddaat li nit ak njaatige jëkkër ak jabar loolu wax yasubillah nanu si yàlla gën di musal Mouhamadul Amin jërëjëf El Hadj Mara Cissé Serigne Mara Cissé waxtu bi eh, dab nañu di la bàyyi rek nga tàggatoo eh, ak eh, téléspectateurs yi mu mel ni rek dañ lay bàyyi nga daanele ak fi nga xam ne muy daaray Wadduha bi nga xam ne ñu ngi ñaan yàlla buur bi subhaanahu wa taala ay indi ko jàmm lan ngay tàggatoo ci foofu ci kàddu ko fi tardaa loolu tax suñu lépp ban ko joxe Wadduha rek lépp lu nu ni sër nu yeen nu am yaakaar lool lool ne yàlla dina nu kàttanal ba mu man di mat loolu nag bu nu yàlla dimbalee nu ñaan yàlla it eh, mbas bi fi nekk macha allah yàlla teggi ko fi tegg ko si àddina bi yëpp incha allah si kàttanu yàlla bu danañ ko taxawal tey bu nu ko taxawalee dinañ ko gën a yaatal yéen it nit dalee fa alif lam mim ba mina jinnati wa naas si kàttanu yàlla ñu ngi ñaan yàlla mottalil nu ko ma Mahamadul Amin kaddu yi lu si jub nu ngi koy sante yàlla jalla jalaaluhu lu si safaanu nu ngi koy jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu bi balaa ñoo daaneel sax man may tëj eh, sëriñ bi mu mel ne xam naa ni ma tabarkalla macha allah eh, tey moom tailleur bi moom mënoo ko ñàkk bañ a gërëm xanaa tey fi nga génnee moom xam naa jaaxal na eh, jaaxal na tey sama caméraman bi moom tabarkalla macha allah. wallaay ndeysaan wëllër yu baax yi rek wëllër yu baax yi macha allah toujours noo lay jox joxaale la loo ñawloo wala nu ñëw ba mu jekk ñëw jox la mooy tax macha allah dañ leen di ñaanal lu bëri bëri yàlla di leen di gën di barkeel di leen di yokk sutura hmm, jërëjëf. mbokk yi sëriñ Mara Cissé El Hadji la woon yaakaar naa ne naa leen dootuñu leen ko présenté euh, partout dans le monde euh, entier tey moom la ñuy fekk si waatoon tey fii ci résidence am fii ci Guédiawaye euh, en face lycée Mame Limamou Laye doomu Ndiarème Guilé numéro téléphone yaa ngi noonu rek numéro téléphone baa ngi noonu ci baaru écran bi 77 la 919 71 00 site web bi bu leen ko fàtte lépp li ngeen soxla ci wàllu li nga xam ne moom lay taxaw li di ki jàppale askan wi bu leen duggee rek ci site bi da ngeen def 3w point wadduha point org waaye tam compte youtube youtube bi moo nekk wadduha tv euh, mbokki di leen sant euh, beneen yoon di ko ñaan rek allahu buur bi subhanahu wa taala doole guddal fanam euh, doole ko defal tawfiix ak tey si nag na jaaxa defal ko sax di taxawa xam-xam waaye tam di liggéey bu sell te askan wi yëpp jox ko bopp tabarkaale te loolu rek moo li am solo di wàllu équipe bi rek sama wàllu caméraman di nuyuwaat bu baax baax soxna mam jaare